you bon ah ginnaaw bi ñu ba pare nag dañoo ñëw tey pour pour waxtaan ak yéen di jullit ak morom waaw gis nañu li fi xew nekkul lu rafet parce que nag mënu ñàkk ci diggante ñaar ñi bëggante léegi léegi fa problème am parce que dañoo ne problème mënu ñàkk ci couple mais nag su xasee am ñu wàccee xol yi jéem a xool lu koy defar ñu def ko defar na mu ñu indi bëggoon waxtaanaat jël suñu jabar delloo ko ci ci ci kër ga fële parce que vraiment namm nañ ko fa trop trop waaw sa toogaay fii moom nekkul loo xamante ni muy gën a moom léegi naa la bu baax mais docteur bi naa la ko wax noonu docteur dara mu bëriwul de situation bi nga fi jëlee sama rafet yi hmm. biñ la koy jox fi méttiwoon na trop hmm. nga bëgg toog ci ginnaaw nga ne bëgg nga da ngeen a war a bàyyi benn affaire boo leen bëggee di toog ci ginnaaw ku jigéen ci bu leen ko may ngeen bëgg koo ñàkkal fayda loolu man duma ko nangu ndax man maa fi ndeyam maa fi bàyyam kii moom balaa ma leen koy jox. nga baal ma soxna si. ma bare balaa ma koy jox damay seetaat xoolaat bu baax du doon tey nag tey nag du ko doon peut-être beneen jour nag. yow wax nga baal ma soxna si yàlla dog nga ma waaye yàlla mu la dee dog lu dëgg ñetteelu histoire daal day yokk histoire suñu jabar la ñu ginnaaw nag jigéen la day teel a mel góor yi laay waxal. Euh, maman. kii may ndayam may baayam. ginnaw keneen ku ma yaakaar man la yaakaar ci kaw suuf te keneen ku mu yaakaar kooku man la yaakaar dag may may rek ma wax ak mom ndax ki daf ma engagé. wa mais déglu nga. te ñoo jug dem ñettali histoire histoire lay indi kat. maman ñu fi pour ah mu ngi mom ndax ma engagé di xuloo man. yow tey ah ki nak eh eh eh yow eh xolal. xolal ñu waxu bo xolal. deglu ma deglu ma xolal. xolal eh. ah eh. eh deglu ma ah maman maman. maman ñu waxtaanee ñu waxtaanee ñu gën a. day dégg suñu jabar la ñu jël si. waaw dañu négocier ba jël ko ñu ànd. waaw du ko def lii mun naa. en tout cas. ah lu ma wax ma xam ci xel. kon kañ lañ dem rek. mu wax nga topp. jox naa leen cër mais ñettali histoire histoire la ci. bëggul loolu nañ dem rek nañ leen dem. Eh, nañ leen dem lii lan la jigéen dem. que dañuy ñoo jug rek waaye bañatu ñu ñun suñu biir vraiment Tega yow xam nga fi nga teg bu baax te bi nga ñëwee kër ga gis nga ni mu demee ñun dañu laa bëgg te yàlla rek tax. lu léegi mag yi yow it dañ lay ñaan rek muy mu déglu maman ngay déglu boo ànd ay kilifa da ngay xam ne ay kilifa nga am la ñun bu ñu ñëwee fii pour waxtaan ak yéen du wax bopp bi jëm kaw moom ñu fi dañoo ñëw rek pour ñu waxtaan xool nu mu gën a rafetee ñu defee ko moom mais pas nekk fii di ñu ko wala kii ñoom ñaar bëggati nañ yow kii boo xoolee xam ne kii rek kii nga xool nga xam ne moom rek la bëgg ñu ko xool nag muy rafetee xam nga ñu defee ko moom ñu jël ñu jëfandikoo ko ñu bañ a suñu dara liñ jël lépp ñu gas ñu ko jox fii. tey moom mën nañu ko jox peut-être beneen jour ngeen may ma waxtaan ak sama njëkk yow nag dana war a wax. déglu ma rek. nettali histoire histoire lay indi. mënoo ñoo may yow mii. ay yow kii lu mu nar a wax lu mu nar a wax laa xamoon na kii lu mu nar a wax yow loo nar a wax li nga nar a wax yëpp sa mag gi wax na ko. yow déglu ma yow moom loo bëri ndox mi moo tax. da ngaa war a noppi nag. ma maman maman nekkal ni. sa dox dox dox dox bu soo dox na nekkal ni. bu ñu mer loo waaye tamit. daa war a noppi nag ko ñu ngi jégalu nag ah. man docteur laay waxal yow xam nga ne ba ngay dugg ci man da ngaa sonn raam nga fi gudd raam fa nga jël balaa ñu ma lay may ma ñëw na dugg sa kër googu sëy la sëy bu rafet ku sëy ci at moomu rek sa sëy tax nga sëy. yow nag tey ji boo toogee foofu ci biir kër gi takk sax jeeg indi ko ci biir kër gi mu amee ma boo waxee jox ko moom wax. dëgg histoire histoire lay indi de. may ma rek ma ñëw fu mu toll ah. da ngay wax ba géex ma ne ma may wax ba suur dëkkandoo yow moom ku ma bett la même bu dul dara lu ne dundandoo nañ ko ci biir kër boobu man ak yow ak sa jabar yow tey du la waroon topp ci sama ginnaaw chaque di ñëw jéem a def ma sama kër ga la toog say. loolu rek ma waaye toog di sama lu ñaaw lu ne lu ñaaw lu ne ngeen sama kaw man. mosuma juum. lu yaa takk say weer. mais yow attends bu njëkk yow wax ji nga wax ji nga wax docteur dëkkandoo ak man moom moo jiitu li nga wax. yow gis nga toog di desante di man dëkkandoo téeméer daa bàyyi fii kon yow nga yeggale waxtaan wi man ma dem. li ngay wax nii li ngay wax nii ci dëkk euh, ci dëkkandoo la dëkk ndax dégg naa ne yow yaa wax ne li tas sa sëy. a toog maman mënoo rek <laughs> yow yaa wax ne li tas sa sëy ci docteur la euh, ci dëkkandoo la jógee moo tax sa sëy tas nga man maa la doon bundu xatal di la teg ay métti teg i coono ba tax nga daw ñibbi si kër xam nga wax jooju moo jiitu li ngay wax kon ñun naka la mën a naka la mën a recevoir wax jooju pare ñëw di yàq sa der pour lan. ak kon lan moo ñu indi fii ci kër yi xoolal man xam nga bu baax yow man ak yow yàgg nañ ci kër gi. bu léegi yàgg nañ ci kër gi maa yow xam nga sama jikko xam nga lu ma ñamee def ak lu ma ñamee ñu def xam nga loo xamante ne xam nga ni man du ma ci dugg waaye man yooyu dafa fi indiwul sax xaw ma ku fa ku ñuy jaxase parce que munoo waxee man ton bi na ah, musul am c'est la première fois kon am na ku dugg sama diggante ak yow. mais daan ko ne fii jiwte woon ci. bala ngeen a ñëw. yow nag wax ju egg nag danga ko war a eggalee bi. yéen ñaata ngeen. ñett lañu. seen rakk ju seytaane ji ak muuraayam ji. bañal loolu. moom ñi moo fi jiitu nag ñoo wax fi li fi wax yëpp du ji njaat may njaat moom ñi si toog bu ñu waxee muy lewetal kanam ak sa muuraay nga war a ut jëkkër fas yéenee sëy comme sa morom. waaw moom la ci wax. géej gaay naa fekk ak

comme woor nga mama bi nga ñëwee ci kii ko wax. lu ay. lan nga ko wax laa wax lan nga ko wax. day kenn ko jaar allah ba ah waxuma la nga ñëwaat waaye fii nga toog moom kër ga bu fa ñëwaat moom sa coono rek la lay dugal ndax yaa ngi nii ma doon jox koor di defaral lu baax lu ne ma ci sama bii man man li nga doon daj yëpp xam naa ko baam baam ak fa lay nekk ak jabaram doodu tay ku bees la am de kii moom dàq na ko moom dem ku bees la am kooku nag mooy toj kër man nag moom lu nekkoon sama tànk fa lay nekk di la jëma lu ne mu wax la ko wax ju ñaaw ju ne mu wax la ko dangaa dawat dangaa tuxoo dangaa dem seen kër fori tànk ba tey ñëwoo te for tànk bi daa yàgg. xoolal jot boobu amuñu ko gis nga yow. yow da ngaa jël sa temps nga jël temps toogal nga xalaat may nañ la ñaari fan waaye ñun lenn doon moo ñu indi mooy nga ñëw nga ñibbi si loolu rek moo ñu ñor du leneen. gis nga kii dañoo war a jël balaa mu fi wax sax lu mu war a wax. kii yow est-ce que xam nga ni kii daa pataat ba yëre bi mu sol sax mu tëdd ndax ay kaa ñu daal. non kii jugal. taxawal. Eh, non non non. kii defe na. waaw te fii te bàyyi fii taane ji. bàyyi kër boo dugg nag. jublu na ngay ñëwee Paa Malick toog. yàlla na mu yàlla sa ataaya dama ko na mu ñibbisi ah. yow dama ko nag mën a fi gisati nag liggéey bi naa xoolal féminin bu tëjuwul bi